rafetlu seen ànd ak euh, première chaîne privée bu Sénégal benn waxtu jot na di waxtu xibaar yi nees gis ñu dégte leen di ci gën a fës. bokk na li ci gën a fës ak 138e appel bu Seydina Limaamu yi daanaka lépp yemb na ministre de l'intérieur di dalal xel waa comité d'organisation bi di leen xamal ne lépp rek dina mucc ay laata ñuy dem ca bés ba. ca Bignona la ñuy wutali jàkkare rek moo fës ci producteur yu gerte yi seen gerte yi ba tey gisuñu ku ko jënd ñenn ci ñoom sax tàmbali nañ di wanteer gerte googee sax ca Gambie. waxtaanee xibaar yi bitim réew ginnaaw cong ba fa amoon altine ca camp bu MINUSMA premier ministre bu centre Afrique àdduna ci donte xam guñu ba tey ku def bilip ñawte fa li moo ci gën a fas yaatal yi léegi lay doon. dalee nag jàmb ci xibaar yi ma ko waxee woon rek ca bopp ba ci wàccaayu appelu Seydina Limaamu Laay bi amal nañ démb rek ab CRD bu mujj ci tiiwaayu kilifa yi ki nga xamante ne nag mooy ministre de l'intérieur di dalal rek xelu waa comité d'organisation bi di leen yëgal ne lépp rek dina yemb laata appel bi ñu teelu ci Fatou Niang ak Libaas Laye Ndiir 138e édition bu appel bu Seydina Limaamu Laay Al ñu ngi koy waajal CRD bi amal nañu ko ci teewaayu autorité yi ministre de l'intérieur di Aly Ngouille Ndiaye moom mu ngi dalal xel yi di wax ni jël nañu bépp disposition ngir amal bile événement ci ni mu gënee. sur la base de li nga xam ne lii service yi wax nañu ko euh, ak également euh, ñoom comité bi contribuer nañ ci am nañ ci yaakaar que ne 138e euh, bi dana jaar ci jàmm lépp li nga xam ne disposition bu ñu war a jël ci wàllu wér yaram ci wàllu. Euh, sécurité ci wàllu euh, set assainissement bi yëpp am na yaakaar ne bu ko doxalee di ñu ko waxee donc euh, édition bi dana gën a taaru yi nga xam ne yii moo daan am donc muy loo xam ne li yokkute lay doon en tout cas ñuy ñaan yàlla sëriñ bi ñaan ñu yàgg ca jàmm euh, ba le 16 et le 17 euh, buñ ci jógee di dem ci cérémonie officielle bi fekk lépp li nga xam ne lii mébatoon nañ ko ñu yeggale ko ci jàmm. ca boobu le CRD nag beneen volet bu am solo loolu waxtaanee nañu ko fa muy wàllum kaaraange ministère bi def na li ci war. waaw wàllu sécurité bi moom xam nga bu ngeen seetloo sax fan yi c'est vrai que sécurité moom du loo xam ne lii dangay xaar ba opération bi jóg waaye day moment yoo xam ne dañ ciy gën a mm-hmm. jël nañ ci ay dispositions am solo fan yi ñuy génn te dañ koy gën a renforcer surtout que euh, zone bi xam bi ñu couvrir xaw na yaatu mais police ak gendarmerie buñ ci boolee seeni i doole rek day gën a yomb donc opération de sécurisation dana commencer encore dana gën a yokk parce que temps yëpp commencé na dana gën a yokk ci fan yi di ñëw ba ba ba li appel yàlla bu appel bi weesoo comme ni ko euh, sëriñ bi waxee bu appel bi jotee it sécurité moom force de défense et sécurité am nañ ci cër waaye population également am nañ ci cër bu fekkente ne gis nañ loo xam ne tàmmuñ ko gis ñu mën a alerter ba. ñi nga xam ne nag ñoom ñoo fa teewal communauté laayeen bi nee nañu seen xel dal na. Euh, waxtaan nañu bu baax ci jëm ci appel bi ndax euh, ci njiitu ministre bi ak suñu kilifa gi ñu àndal Seyna. Euh, parcourir nañu demande yi nga xam ni yëpp laajoon nañ ko ci service yi pour ñu préparer bu baax appel bi bi ñu jógee ci loolu ñoom service yi fi nga xamante ni yëpp ñun amoon nañ ci ay peut-être euh, ay jaaxle leeral nañu suñu xel et aussi dalal nañ suñu xol suñu xel bu baax ci ci yenn points yi nga xamante ne yi peut-être moom lañu yaakaaroon ni il faut ñu gën ko améliorer. ca bile comité régional de développement nag ñi nga xam ne autorité laayeen yi ak service de l'administration ak comité d'organisation bi teewoon nañu fa loole lépp ngir waajal cérémonie religieuse bu 138e appel bu Seydina Limaamu Lay Al Mahdi bi nga xam ne daañu ko amal fukki fan ak juróom benn ak fukki fan ak juróom ñaar ci weeru avril bi ñu nekk jërëjëf euh, Fatou Niang dañuy dem ca Bignona li nga xamante ne nag mooy coono rek la ñu nemmeeku ci producteur gerte gi ndax jamono ji yëpp ñoom gisuñu ko ñu jaay seen gerte gi ñu juboon mu nekk ab mbir moo xamante ne naqari na leen lool ba tax nañu ñu bëri ci ñoom sax jamono ji ñu ngi wanteer ñu ne seen gerte gi ca Gambie Seydou Diatta ak Abba Cissé lañ ci teelu waxtu bi daan na fekk jiw gi rek la béykat yi dañ ci seen kër toog di xaar nawet waaye ren moom demeewul noonu ndaxte bari na ba tey ñu jaayagul seen gerte ndax ñàkku client loole la ñu nemmeeku ci gox bi di Fogny nekk ci département bu Bignona. yoon bi yëpp goudronné wuñu ko depuis Ziguinchor be frontière te yoon boobu béykat yu nekk boori Fogny yëpp fii par Sindia ak yeneen dëkk yi nekk fii ba frontière ñoom ñëpp ay béykat lañu. dañuy liggéey mais duñu am oto sax bu nangu ñëw fii. pour évacuer seen production vers les grandes communes comme Bignona ak Ziguinchor wala même ba Dakar par le bateau. sans papa jarteem mu ngi ni demul fen jël li nga yoroon ci réserve togg ko yëpp nga dem dugg ci nawet. sa gerte baa ngi ni ci kër ga am na boo xam ne yóbbu nañu ko ci Sonacos te ñu ngi ni ci ay bon yi ba léegi amuñu xaalis. bis bu ne tiitaange bi gën di yokk boole ci njàkkare ci béykat yi am ñu dem ba mënatuñu xaar daal di tàmbalee di yóbbu seen gerte ci réewum bi waaye nakar bi mooy foofee clients yi ñooy samp seen prix. depuis mois de janvier bu ñu commencé génnee gerte bi si àll bi ba tey gerte bi dem na xaalis ñëwul moo tax ñeneen ñi ñoo xam ne joxewooguñu seen gerte ñu bëre ñu ngi jël seen gerte di ko dem jaayi bitum réew maanaam Gambie gënalul état Sénégal gënalul état Sénégal parce que état Sénégal mooy jàppale béykat yi bu ñu béyee ba pare du mun a jël gerte bi yëpp donc loolu gënaluñu sax ñun. ah ñooy def wala ngay bàyyi gerte fi gerte fi mu yaaxu ba pare muy bënn loo koy def xam ne amuñ client gerte bi mu ngi commencé bënn. léegi dañu wàññi prix bi ba ci suuf léegi ñun jigéen ci gerte bi la ñu yaakaaroon. ndax ñu mënoon ci am tuuti ñu mën a ñu mën am ci suñu dund. askan wi yeewu ci gox bii jàpp ne jafe-jafe yépp ñàkk yoon moo leen ko yóbbee moo tax. mu ngoo ko dañuy del si Dakar waxtaanee xibaar ci gàttal premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne moo dala rek syndicat bi ëmb ñi nga xamante ne ñoo yëngu ci wàllu wér-gu-yaram li ko waral nag dañoo bëgg rek waxtaanee ci yan pexe rek la ñuy tekk ngir indi saafara ci boobule secteur yoo xamante ne ñi nga xamante ne ñooy waa kër docteur saa su nekk rek ñu ngi ci joytu ay jafe-jafe nañ ci dellu si waat ni mu gën yaatoo yaatoo suñu yeneen yi xëttu xibaar ñu dem ca Fatick waxtaanee fa lim bu takku ci ay élèves yuy laj ci lii des examen ak i concours ñoom nag xayma bi toll ci 35 pour cent ki ko di waa inspection d'académie waaye waa inspection bi nag ñu ngi xam ne ne dañ def seen képp kàttan ba xeex rek lu ne mel Alioune Badara Sonko ak Mohamed Thiombane lañ ciy atum résultat yi nga xamante ne moom lañ nemmeeku ci examen ak concours yi am ci région bu Fatick taxu koo demee noonu moo tax autorité académique yi bëgg a toog càmbar bii le mbir. donc suñu xoolee performance yi. nga xam ne académie def na ko ci année bi passé xam na nekk performance yu nga xam ni néew na suñu gis-gis parce que li ñu doon xaar ci examen yi parce que ce examen yi daal mooy miroir moo gën a mën a wane maanaam performance wu académie ba ñu xoolee donc examen yi xam nañ ni suñu pourcentage yi ñu fa am faible na lool. beneen seetlu bi nga xamante ne amal nañ ko ci seen bii ndaje mooy élèves yi seen niveau ci wàllu lecture dafa faible. am na benn programme bu ñu naan programme lecture pour tous ba nga xam ni euh, ministère mu ngi koy dérouler mais am nañu yaakaar ni ak ni ñu ko commencé ak résultat yi ñu ci commencé am dina dina tanel bu dina dina dina dina xëcc bu baax pourcentage yu élèves yu nga xam ni euh, comme niñ ko gisee au niveau de CI CI comme comme de cep il n'arrive pas à lire il y a fort pourcentage élèves yu nga xam ni. mënuñu mënuñu lire wala mënuñu def mathématique. ndaje xayma bi nga xamante ne inspection d'académie bu Fatick moo ko woote woon ngir jéem a xool naka la ñuy ñoŋalee résultats yi ñuy obtenir ci région bu Fatick doon na occasion tamit pour kilifa yi daal di sàkku ci ministère bi mu daal leen gën a kàntanal ci wàllu jumtuwaay. jaajëf ba dara Sonko dañuy dellu siwaat euh, ndakaaru waxtaanee wàllu yoon ak yoonale li démb rek la ñu tàmbaliwaat yi di procès wu imam Alioune ndaw ak ñi mu àndandool nag ñu ngi leen toppee rek li nga xamante ne mooy wàllu terrorisme ak association de malfaiteurs El Hadj Malick Cissé ñu dellu siwaatal ci ni procès bi jaaree woon moom Mouhamed Ndiaye. ginnaaw bañ ko dàqee lu mat ñetti yoon procès imam Alioune Ndao ak ko accusé tàmbali na ci altine gi ci kanamu chambre criminelle bu palais de justice bu ndakaaru mbirum exception ak ordonnance de renvoi moo si njëkk lu ñu seetlu rek mooy charge yi diis na charge yi mosu woyof charge yu diis moo tax ñu indi ñu en chambre criminelle donc xam nañ li ñu toppee mais ay tuuma rek la parce que ci dossier bi boo ko càmbaree ba yegg ci biir da nga gis ne amul benn firne boo xam ne mu ngi ci biir pour mën a taqal imam Aliou Ndao lenn ci liñ ko toppee maintenant diis na mais du tere dinañ jàmmarloo ak procureur la république bi nga xam ne moo ko fi indi mi nga xam ne moo koy topp pour wane ne tuumay kese la waxu neen la teguwul fenn. mën nañu wax ni procès jëm si wàllum terrorisme tàmbali na bu baax te dina def lu mu néew néew ñetti semaine fanweeri accusé ñoo nar a taxaw défense bi moom xelam dal na. ay avocat lañ euh, fanweeri nit ak ñaar lañ ci topp ku ne da nga am say avocat ñun ay ndaw lañ avocat ñun imam ndaw la ñuy défendre imam ndaw moo ma ne dama bëgg man ñu atte ma parce que aw ma lu may ragal awma lu ma def nañ ma atte gis nga bi ma jëlee kàddu dama ne nangu naa yeneen avocat yi ñu ñaan ñu dàq mbir mi respecté naa ko nangu naa ko aw ma lu ma ciy wax waaye nag man suma client imam Aliou Ndao dafa ne dafa bëgg ñu atte ko loolu suma sañ-sañ la ñu ñaan ko chambre criminelle chambre criminelle nangul ñu ko. te boobu lay waxtu tribunal seetal Assane Camara waaye franco sénégalais bii di Ibrahima Ly tribunal daan na ko fukki at ak juróom yu muy amal travaux forcés ñetti chef d' accusation moo tegu ci ndoddam association de malfaiteurs bi ñu wax. terroriste ak lépp lu jëm ci wàllum apologie du terrorisme El Hadji Malick Cissé ab ñu samp laaj jëmale ko ci li nga xamante ne mooy projet de loi bi ñeel parrainage ñu bëri jàpp ne ne nguur gi dafa nar rek delluwaat ci ginnaaw ci boobu lépp loi ndaxte jamono ji bees na pour centage bi mu jàppoon ñu fare nag ci kujje politique bi jàpp ne loolu benn yoon gënalu leen ndaxte dañoo ne nguur fi réew mi dafa nekk rek di def li ñuy woowee ab divers diversion initiative pour les élections démocratiques ñoom dañoo bëgg rek nguur gi dindi li nga xamante ne mooy projet de loi boobee ñu bañ koo yóbbu fële ci assemblée nationale Lassana Cissé ak Gibi Diallo lañ ciy woote bi nga xamante ni ñenn ñi fare ci langue politique bi woote nañ ko ngir dal am ginnaaw mbirum système de parrainage mu mel ni tàbbiwul ci nopp ku tëx jëriñ gu ñu dénk wàllu yoon xamle ni nguur gi noppi na ngir waxtaan ak opposition bi mu nekk nag mbir moo xamante ni waaye initiative pour des élections démocratiques dañoo jàpp ni dañ leen bëgg a réeral. dañ bëgg ne loolu opposition bi ndax ñoom xam nañu carrément li nga xamante ni moom lañ leen wax. li mu leen di wax ni Sénégal yi yëpp xam nañ ko ndax bind nañ ko ci ci mémorandum jox ko ko moom mais moom président Macky Sall ba léegi tontoogul opposition ci mémorandum boobu nee nañ ko benn euh, bëgguñu ministre de l'intérieur di organiser élection yi ndax li jógee ci élection yi ñu US yi 30 juillet 2017 gis na ni njombe yu garaaw ak garaaw ak garaaw yoo xamante ni am na ci élection yi IED jàpp ni cool yi feneen la nekk loolu sax moo tax ba fulaa lu ñu woote gi nga xamante ni njiit réew mi woote na ko opposition jàpp ni kóolute moo amatul seen diggante. contre proposition bi nga bi nga xamante ni moom lañu koy defal moo di ni mu mu retiré maanaam mu dindi ñaari projet de loi yi nga xamante ni jël na ko. dañu wóoluwul Macky Sall parce que def ñu ay kàddoom moom moom mooy mooy toxu fii la ñu rencontré woon ak moom mënuñu élection yi day jàpp nañu tel date ñun ñun ak moom parce que ñoo ko sakku ñoo toogoon woon ak moom date boobu ñu génn mu dem jël beneen date bu ut ak la ñu waxante woon euh, ci mbirum député de la diaspora également bi nga xamante ni opposition bi daje ak moom def ni woon quinze dix député lañ koy def ñu jóge fu def ko quinze. kujje gi nekk ba léegi fu mu nekkoon ñoom lu ñu jàpp mooy ne xel xalaatul sax ñu fiy amal système de parrainage. réew Mauritanie ak bu Sénégal dem beek dikk bi yàgg na fi loola li ko waral nag jegeyoo bee ko waral mu nekk ab mbir moo xamante nag war a na ay sénégalais yu nekk jamono ji ca Nouakchott di fa daan seen doole te it di ci gis seen bopp bu baax buñu sukkandikoo ci reportage yu Kumba Gisee moog Las mu nekk jamono ji luy sukkaliku bu baax a baax diggante Sénégal ak Mauritanie ndax ci ay ndaw yu takk ñu ngi jóge fii ci Sénégal di dem foofu foofule ca Mauritanie ngir daan seeni doole mu nekk loo xamante ne nii li ko indi rekk moo di particularité monétaire bi. Euh, ci benn ci benn fànn bi mën naa ni mooy ci wàllu dëkk bi ñaari dëkk yi duñu benn waaw dëkk bi Sénégal nit ñi dañu xaw a dañu xaw a bëri waaw mën naa waxee noonu quoi pas question daal nit ñi naa waxee nit ñi dañu xaw a bëri. par rapport ak fii différence bi dafa bëri Sénégal 14 millions habitants fii presque 4 millions sax manqué na waaw benn quoi beneen fànn bi mooy ci xaalis bi xaalis bi ñaari xaalis bi ñu benn CFA bi dafa metti huit réew lu bokk ñu bokk xaalis xam pour tasaare ku nekk jot sa wàll day xaw a pour ñeneen ñi jot ci day xaw a jafe. ay sénégalais lañ mais foofu lañ njëkkoon a nekk daal di liggéey ñu ngi woon Sandaga foofu lañ nekkoon di liggéey wax dëgg suñu liggéey neexoon na doxoon na nag. mais nag génn moom xam nga rek daa war góor war jigéen. ci immigré yi nag ñoom ñu ngi fay liggéey bu baax a baax di ci daan seen doole teewul li nga xamante ne ni jamono ji mooy indi wax ji moo di bémol ci diggante li nga xamante ne nii moo di ñaari monnaie yu bokkul yi. Euh, su neexee ba neex su neexee léegi la sax léegi la nii affaire boo xam nga dëkk bi ak changement xaalis bu bees bi moo indi affaire bi mais avant loolu daan nga mën a wàccaale dix mille lu ko sax ëpp mën na. parce que ñoo ngi liggéey am na ñu wér dara manqué wuñ daal ñu ngi sant bu baax a baax a baax vraiment. migrants yi ñoom nag ñaxtuwuñu benn yoon ñaam sax ñu ngi gën a sant yàlla ndax jàpp nañ ne ñu doon gañe foofu la ca Sénégal lu ko ëpp la ñuy gañe biir Mauritanie. dina évoluer pour man parce que fii boo xoolee dafa nekk pays boo xam ne actuellement ñoom dañu commencé développer. waaw parce que du ma laawaale ñëpp quoi mais ci man ci moom moo gën a dox quoi. waa sentir naa sama bopp moom waaw parce que wax dëgg yàlla manqué wu ma fi dara daal maa ngi lekk maa ngi naan aw ma benn problème daal. naam ay bouleversement socio économique amoon na ñi nga xamante ne ni moo di tendance mauritanien jëm ci wàllum immigration jamono ji mu ngi garder ab trajectoire statistique disponible di wane que population ci ñaari dëkk yi jamono ji mu ngi circuler ci ab rythme boo xamante ne nii ñoo ko bokk. koy jaajëfal bu baax Kumba Gissé mi ñu demaloon ca Mauritanie dañuy waxtaanee ba tey wàllu diplomatie kenn umpale leen yi di ñaari réew yi di Arabie Saoudite ak Iran jamono ji yëpp ñu ngi ci xiiroog ngaayoo bu tar looloo waral ba ki jiital sunu diplomatie moom di xamle ne rek fokk rek ñu amal ay waxtaan ngir mën a génn ci yooyu lépp boobu lépp conflit ba tey kii di Sidiki Kaba di fàttali rek ne bu fàttali sax ne ñaari réew yooyu sax dañoo am ay coopération Sidiki Kaba ci micro Omar Mendy. gannaaw loolu am na ci umma islamique ay guerre yi nga xam ne am na siri am na Yémen am na Palestine président Macky moom partisan du dialogue la nitu jaam la dafa bëgg fépp fu histoire amee ñu régle ko ci euh, dialogue te ñu bàyyi Euh, solution militaire loolu la ñu waxtaan di préciser que Sénégal lu muy défendre mooy position président Macky Sall mooy di su ñu war a régler question israélo-palestinienne ñaar réew moo war a am ñi nga xam ne ñu ngi dund ci jàmm ak salam luñ ci mën a wax mooy di Sénégal réew mi souverain la lu ñu mën mooy. fexe ba euh, réew ñi nga xam ne bokk nañ ci umma islamique ñu mën a déggoo ndax ci guerre mun ñu ci régler dara développement ci jàmm lañ ko mën a amee te looloo tax ñu ngi promouvoir jaloog diggante ñaari réew mi diggante ak yeneen réew ñi nga xam ne am nañ tolof tolof difficulté ci euh, seen diggante mu mu nekkoon maître Sidiki Kaba des ministre des affaires étrangères mi doon addu ci micro Mohamed yi dañuy waxtaanee xibaar yi bitim réew delu fële ca centre Afrique ginnaaw cong ba fa amoon démb nag ci camp bu MINUSMA kii di premier ministre bu centre Afrique bi di Simplice ji moom àdduna ci jonte xamagul ba léegi wala joxeegul sax tur yi nga xamante ne ñoo def bi lépp attaque wante mu ngi jot rek nañu ay éléments yu bokkoon ci waa Seleka yi la leeral yi ak xajota ñaw si. gannaaw gi ba mu amalee ab déclaration ni ki dimanche ci ngoon doon na loo xam ne ñu bëri daal di nañ koy xaar waaye lu ni mel ci ñetti simili dong la daal di amee te li ñu ci daal di jàngat moom mooy ñi nga xam ne ñoom ñu amal ñaawteef googule ba tey xamuñu leen naka noonu ki nga xam ne moom mooy njiital réewum Centrafrique mi ngi woo askan wi ñu daal di dénoncé képp. képp koo xam ne gis nañ ko mu daal di am doxalin boo xam ne méngoowul ak yoon naka noonu ñenn ñi jàpp ni sorti wu njiital réew mi dafa daal di gàttata ba noppi dalul xel ci ab fàttali attaque bi mi ngi am ni ki dimanche juróom-ñetti fan ci weerub avril ba 23h jotee tey xamuñu ñu def ñaawteef yooyu ci naata lañ toll waaye ñenn ñi ngi jàpp ni ñeent lañ ñi ngi amal googulee ñaawteef daal di tontu ñi nga xam ne ñoom ñoo doon amal ab opération bu MINUSCA ni ki dimanche matin ci PK ne dafa doon seetal ak euh, dindi bépp groupe bu ñu jàppee ni ay groupe autodéfense lañ boobulee camp bu fidèle bu MINUSCA mi ngi soriwul dara ak fi nga xam ne moom mooy résidence su njiital réew mi moo waraloon ñu bëri daal jàpp ni coup d'état lañ doon amal ci xibaar yiñ ci jotagum nag ñenn ñi jàpp nañ ni bi lebret ñi ko amal ñoom ñooy ex seleka yi mi ngi am gannaaw gi ba ñu xamle ni dina amal ab mission conjointe bu ONU ak Union africaine fas mu nga ko fa la ñuy jaarale dem ca Syrie waa conseil de sécurité ñoo amala démb ab ndaje ci urgence ngir waxtaane rek ginnaaw ab congo ba ñoo amal ak congo chimique ba amaloon ca Damas ñoom nag ñi nga xamante ne ñooy waa États-Unis ak waa France waa Syrie rek lañu duut baaraamu tuuma ne def lu ni mel lu ëpp téeméeri nag ci ay doomi aadama ñàkk nañ ci seen bakkana leeral yi ak Kumba Gisee yuuxu jibaat na diggante ñi nga xamante ne nii ñoo di waa Russie ak occidentaux yi France jamono ji di accuser ñi nga xamante ne nii ñoo di waa Russie ak Iran ndax jàpp nañ ne ñoom ñoo waral li nga xamante ne nii moo di régime syrien yi amal ab attaque chimique bu yees ambassadeur français François Delattre di accuser directement ñi nga xamante ne nii ñoo di allié wu régime syrien ndax jàpp na ni ñoom ñoo waral bile attaque chimique ci ndimbalu militaire russe ak iranien jamono ji ñu ngi ci terrain bi di amal ay échelon jëm ci wàllum appareil de guerre syrien teg ci di dëggal ne benn avion syrien du décoller tant que ñi nga xamante ni nii ñoo di waa allié russe informé wuñ leen attaque bi nag intervenir ci ab accord tacite wala explicite ci Russie lépp loo xamante ne nii rek moo jëm ci wàllu militaire yi ñoom jamono ji taxaw nañ temm François Delattre di assuré ñi nga xamante ne nii ne France jamono ji dina amal taxawaay bu dëgër ci boobu le mbir teg ci du joxe ay leeral yu da bëri Washington ak Paris ñoom jamono ji ñu fësal li nga xamante ne nii moo di seen booloo ci boobu le mbir fësal li nga xamante ne ni moo di seen yéene te jàpp nañ ne loolu action diplomatique boo xamante ne ni dañ ko lajj teg ci lu ci des rek moo di ab recours ci force bi ambassadrice des États-Unis bu conseil de sécurité Nikki Haley moom jamono ji di leeral bu baax a baax mbir yi diplomate bi indi ay sikki sàkk lu jëm ci wàllum li nga xamante ne ni moo di mbébétu Washington ca boobu les ñëw publique bu ñu amaloon altine gi moom fësal na li nga xamante ne ni moo di justice war na ko amal moo di ñu dem fa mbaxana doonee benn mu xibaar yi bitim réew yi mooy ndar képpee rek pàcc bu njëkk ci xibaar yi ñu dem ci ñaareelu pàcc bi ak revue de presse beeg xajata ñoom si li gën a fës ci ëttu yéenekaay dañ koy tàmbaleek euh, yéenekaay bi la di enquête daal di ñëw ci li nga xam ne moom mooy ay coalition yu bees yi nga xam ne opposition bi ñoom ñoo nekk taxawal mu mel ni déggoo bi diggante li nga xam ne ñoom ñoo sekk kujje politique bi doon na loo xam ne dafa jafe loolu waaye itam ñëwaat na ci li nga xam ne moom mooy procès bi ñi nga xam ne dañ leen toppee lu ñeel wàllum terrorisme mu mel ni li nga xam ne moom mooy euh, sentence yi tàmbali na euh, daanu ñu daal di àddu jëm ci fi nga xam ne moom mooy Dakar Time li mu daal di fësal moom moom mooy Sénégal ci wàllum démocratie nekk na loo xam ne dafa nekk di dellu ginnaaw mu mel ni Macky dañ ko daal di wili pande foofule ca parlement européen yi ñu daal di dem xool yéglikaay bi di Le Soleil ñëw ci li nga xam ne moom mooy formation yi ñuy wax ci wàllum métier hydrocarbure mu mel ni euh, pétrole bi nga xam ne moom moo fi daal di feeñ tàmbali naa indi ay opportunité te Iran moo fi taxaw tànk ngir mën a indi li nga xam ne moom mooy xam xam di amal ay ñoñam mu mel ni Macky remobilise ses troupes jëm ci li nga xam ne moom mooy waajtaayu élection présidentielle yi source a ñëw na ci ñi nga xam ne nag ñoom ñooy retraité yi nga xam ne dañoo li nga xam ne moom mooy seen réew ba ñëpp ne déet ñoom ñoo taxaw ne waaw ba ñëpp dawee ñoom ñoo taxaw ngir li nga xam ne moom mooy kaaraange biir réew mi ñooñ nag ñooy retraité maltraité yi ñi nga xam ne ñoom ñooy mutilé de guerre mu mel nii nag dañ leen di maltraité wàccuwaay bi nga xam ne moom moo wax ñoom defee wuñ ko réew mi quotidien ñëw na addu jëm ci li nga xam ne moom moo ñeel wàllum terrorisme mel ni condamnation yu njëkk yi nag tàmbali naa daanu Ibrahima li daal ko daan lu toll ci fukki at ak juróomu travaux forcés ki nga xam ne moom mooy Assane Camara moom nag waa daal dinañ koy setal ñi nga xam ne ñoom ñooy layal Imam Ndaw ñoom nag ñi ngi plaider li nga xam ne moom moo jëm ci neenal boobu les procédures 24 heures quotidien ba tey ci boobule wàllu ñëw ci li nga xam ne moom ñoom ñoo koy daal di soutenir ñu daal di wéy jëm ci zoom info zoom info ba tey daal na ñëw ci li nga xam ne moom mooy apologie du terrorisme nee na verdict yi tàmbali naa daanu te yooyu les verdicts tàng jër la def ñëw na itam ci li nga xam ne moom mooy baisse de dépense yi nga xam ne nemmeeku nañ ko ci atum 2018 bi le quotidien daal di ñëw ci marché gré à gré maanaam marché yaama neex yi nga xam ne toll na ci 400 milliards de francs CFA mu mel ni la SAR nekk na ci baaraamu tuuma libération ñëw ci li nga xam ne moom mooy séjour bu kii nga xam ne moom mooy almari daal di amal file ci Dakar ki nga xam ne moom mooy procureur général bu Qatar daal di nay daje ki nga xam ne moom mooy Macky Sall ak itam Sidiki Kaba ba tey ci libération Assane Diouf daal di nañ ñëwaat ci li nga xam ne moom mooy kook nga xam ne ràññee woon nañ ko loola ci saaga yu métti yi nga xam ne doon na ko saaga autorité yi les dessous d'une nouvelle audition lu ni mel mi ngi ci biir libération les écoles daal di ñëw ci wàllum tàggat yaram daal di fësal li nga mooy naataalu Modou Lo ne l'adversaire de Modou Lo daal dinañ koy xam ni kii tey dem na itam ci li nga xam ne moom mooy naataalu Alioune Cisse wax na ci groupe bi nga xam ne moom moo fas yéene dem ci jongante Russie nee na moom moo souci majeur c'est le flanc gauche de la défense mu mel ni lu lu mel moom moo xaw a jaaxal kii di Alioune Cisse waaye dina ci am ay mbir yoo xam ne daal dina ko ci tek leeral yaa ngi ci biir journal boobule di Les Échos l'Observateur daal di ñëw ci li nga xam ne moom moo ñeel wàllum people fësal bu mu amal ak Yaay Fatou Diagne moom nag yaay Ndiaye Fatou mi ngi xamal ni bés ni tey mi ngi daal di wëy di dund ci kër ki nga xam ne moom moo nekkoon jëkkëram di Serigne Mboup waaye xam ne ni moom amul lenn loo xam ne da ko ciy daal di rëccu Serigne Mboup yëkkati ay kàddu jëm ci lu ni mel di xam ne Yaay Fatou doon na ab jabar joo xam ne jabar ju baax la Alioune Sall itam ci l'observateur moom mel ni dafa daal di gàntal ab post bu bees bu ñu ko doon jox ñeel PCA bu Air Sénégal SA leeral yaa ngi ci biir l'observateur ba tey wàllum tàggat yaram ak yéenekaay bii

Ligue pour achever City leeral yaa ngi ci biir euh, yëglekaay boobu la di stade suñu làmb la ñuy daal di dem moom nag daal di ñëw daal di fësal li nga xam ne moom mooy ay kaddu Mbaye Guèye li nga xam ne moom moo ñëkk a nekk Tigre de Fass daal di xamal ni mbër yi dañoo war a amal li nga xam ne moom mooy ab grève bu juróom benn weer ndax nag waa CNG dañu daal di comp yi ñuy comp ci li nga xam ne moom mooy seen xaalis dafa bëri xam na ne kii di Lac de Guiers daal dinañ koy comp li nga xam ne moom moo toll ci juróom benn million Balla Gaye àndoo lu ëpp ci juróomi million itam ki nga xam ne moom mooy Ama Baldé benn million ak lu toftal Sa Thiès lu toll ci juróom euh, ñetti fukki junni Boy Niang Papa Sow Modou Lo Elton Reug Reug naka noonu leeral yi mi ngi ci biir euh, sunu làmb lu ni mel moom moo gën a fës ci ëttu yéenekaayu bés ni tey di fukki fan ci weeru avril di leen jox daje ni ki ëllëg incha allah jaajëfatee kii di xajot ñoo si ñu leen di jaajëfal yéen tamit mbokk téléspectateurs yi doon suivre bi lépp édition xibaar yi nañ fi delluwaat 19h ak 20h jaa ngi jëf ci teewlu bi di leen ñaanal yendu jàmm di ko sàkk ci yéen.